sport les Jeux olympiques le record de gàkku a été battu Cheikh Tidiane Gomis. waaw xam nga euh, xam nga euh, li nga euh, kon nag li xew démb. mooy que bien vrai que Cheikh Tidiane Diouf athlète bi di daw ci quatre cent mètres a été éliminé. Mhm. sixième la jël ci li nga xam ne mooy demi-finale bi. Mhm. mais en même dafa battre record u Gakou mm-hmm. waaw parce que record boobu euh, record boobu yàggoon na euh, nekk fii mu nekkoon benn record boo xam ne mm-hmm. euh, honnêtement Gakou Amadou Gakou mm-hmm. en bu mu koy def dafa doon ñaan balaa muy génn àdduna na am benn athlète bu ko bu am record bi battre moom moo am record gàkku boobu waaw léegi waaw kii di a kii di Cheikh Tidiane Diouf uh-huh. démb uh-huh. dafa def uh-huh. euh, dafa battre record bi mm. comprendre loolu suwe boobu gàkku amoon amadu euh, Amadou Gakou ancien athlète waaw doyen euh, démb mu ngi koy rafetlu nee lii la doon ñaan balaa muy génn àdduna. day ñaan suñu borom. mu jox ci athlète u Sénégal. Mhm. kenn koo xam ne day battre record bi. Mhm. d'accord loolu am na tey. mooy seet kon victoire la en quelque sorte. Euh, loolu kii la mais c'est que sama wax. Euh, du jëm ci foofu. ci il faut que ñu jéem a xool un peu. waaw man damay laaj. Mhm. ndax. nguur gu bees gi le ministère des sports. Euh, est-ce que ñoom. avec leurs techniciens ak ñoom ñëpp. ñu ngi xool maanaam euh, sunu athlètes yi demoon ci Jeux olympiques. Hmm. athlètes yi demoon. waaw ñu ngi leen di xool ci lan. maanaam est-ce que ñu ngi leen di xool par rapport ak seeni performance ah di def ay études di xool. parce que après bi. Mm il y 2028. à Los Angeles. donc. li am ci euh, maanaam sunu athlète euh, sunu euh, kii yi nga xam ne sunu sunu sunu kii yi. ministre des sports. moo fi toogal état. ak ses techniciens. évaluer xool lan moo lan ñii. ñi lan moo manqué. lu leen manqué. lu leen manqué parce que booy xoolaat. Mhm. ñoom ñëpp booy xoolaat seen ko booy xoolaat. waaw ñun ñëpp ñu ngi koy seetaan. Mhm. mais booy xool ñii da ngay naan ñii am na lu leen manqué. parce que ñii gënu leen gënuñu leen aay. ci côté nan la encadrement nu ñu leen. performance performance non c'est dama ne. Mhm. yow boo xoolee. waaw. nga commencé ko. dégg ci. ñi demoon athlètes di demoon ñëpp seen compétition bi ñu compétiré dañ ñi ñu éliminer ak ñi nga xam ne éliminer éliminé guñu leen. Mhm. il faut que ministère des sports. Mhm. parce que loolu ñuy xaar ci ministre. Mhm. évaluer. def ci bilan. parce que fii on éva fii on n'évalue pas. ah il faut évaluer pour xam pour beneen. fii nag du ñu évaluer. compétition bu jeexee da ngay évaluer. mais man gis-gis bu ma gis avant. mooy que ñii damay gis ni ñii ñu ngi compétir. Mhm. mais ñii dafa am lu leen manqué loo xam ne ñee ñee leen raw. ñii ñi leen gagné. ñooñu loolu la ñu am te ñoom amuñu ko. muy lan. mooy la préparation. préparation d'accord. la préparation. préparation bi dafa des dafa des. dafa des boo ko xoolee. Mhm. quand bi ma gisee chaque Tidiane Diouf bii. waaw eh, la jël. waaw avec ce temps là. Mhm. wàcc wàcc ci eh, quarante cinq secondes bi wàcc ko mm-hmm. nga xool ni mu doyee muy de sixième mais booy xool ni muy doyee waaw mm-hmm. ak même seen repêchage bi ak yooyu yëpp ngay xool Louis François Mendy moom mooy daw tey jii mm-hmm. en demi-finale Louis François Mendy moo jël pay ci sérieux waa ku jël pay ci sérieux kooku ay na léegi nag mu ngi dem demi-finale tey si ngoon waaw ñuy ñaan yàlla may ñu ba nga xam ne Cheikh euh, kii euh, Louis François Mendy. Mhm. mu mën a qualifier en finale. parce que c'est ça mhm. l'objectif. Mhm. moom bi mu assigné boppam. waaye man damay ne athlètes yi. boo leen fi jëlee ay objectifs da di tooñ seen bopp. teguñu leen dans de très bonnes conditions ba ngeen di jël ay objectifs. kenn sañu leen wax objectif lii la. kenn sañu leen ko wax. di jox ay douze milliards et onze millions à la dernière minute. ci ab athlète lan la ah dañ ko yéex a joxe. avant ñuy dem waaw. combien de temps avant ñuy dem. mu génn yow booy yow mais mais non attends Louis François Mendy bii. waaw. depuis quand depuis depuis depuis plus d'un an. Mhm. mu ngi laajte vingt trois millions pour préparation. Ah joxuñu ko ko Jeux waaw joxuñu ko ko. ñi muy dowal tey jii ñooñu. Mhm. la France. ñi muy dogal ñoom moom tey tey Louis François. waaw mais ñoo ñëpp dem final. boo ci xoolee ku ci nekk boo xoolee athlète bi. Mm-hmm. athlète bi. Mm-hmm. Euh, sa dëkk préparé na la yàgg na. loo mm-hmm. tax tey lu mu am. damay ne gàcc ngaa la am. waaw lépp lu ñu am comme. lépp lu ñu am maanaam bonus la. dëgg mu nekk nii. li euh, Pierre de Coubertin waxoon. l' essentiel de participer. loolu de moo fi am. amu fi leneen lan moo fi leneen mhm. il faut que ñu bàyyi tappale bi ci sport bi le sport àndul ak tappale mais ça a toujours été comme ça wala même régime bi fi nekkoon est-ce que daawoon nañ préparer athlètes yi wala da nga jàpp ne bii la bi soog a régime bu bees bi ak euh, ministre des sports bu bees bi moom moo euh, jëlut euh, li nga xamante ne mooy précaution pour teel leen teel leen a jox ñu préparer wala loolu yàgg na am dañ ko yàgg a nemmeeku dëgg bu amee da nga koy wax bu dee dëgg. waaw nit da wax dëgg. waaw muy lan. mooy que. Hmm. ñii bi ñuy falu. Hmm. bi ñuy falu. waaw. boobu. Hmm. boobu. waaw fekk na. affaire yi yàqu na bu yàgg. Ah, dafa yàqu ba pare. waaw préparation parce que préparation athlète. nee ne Jeux olympiques dégg nga naan ñu naan la. Amadou Diaba bi le seul médaillé olympique au Sénégal. Euh, xoolal. moom moo wax benn affaire mu ne. pour mu gagner médaille am. Mhm. il l'a préparé pendant dix ans. waaw kon waroon nañoo xool ci kaw Amadou Ba boobu. ba tey la préparé merci euh, kon nag régime yi fi nekkoon. Mhm. pour kaw euh, Louis François bi mhm. Macky Sall. waaw parce que waroon nañ ko def bu yàgg. waroon nañ toppatoo loolu bu yàgg. mais football bi la ñuy topp ba fàtte. moom laa lay wax moom laa lay wax dama ne. Ah, ñoom la. dañuy fàtte mel ni yeneen sport amul. ma damay wax ñoo ngi représenté Sénégal. xoolal man man amul kenn koo xam ne man dina ma kii man neex man man kiiwuma kenn man damay wax man li ma xalaat lii logique. Hmm. lii logique. dix ans ñu la koy nga ngay waaw ñii ñii di daw ñii tey jii démb di booy xool ak tey ñoom ñëpp ñi ñi di kii. ñoom préparé nañ leen. Hmm. il y a de cela dix ans huit ans. dommage quand même kon nag. c'est ça aujourd'hui le problème mooy tey jii li nga xam ne euh, moom mooy résultat yi di am man damay naan Cheikh Tidiane Diouf gàcce naa la mhm. nga baat record bu yàgg record boo xam depuis 1968. Mhm. depuis 1968 amuñ ko. waaw kon nag léegi nag man je le moom haut et fort dégg ah, euh, <laughs> ci ñoo xamante ne dañ leen a yéex a jox ñu préparé wu ba pare. Mhm. mu mu am lii. Mhm. mooy li nga wax rek mu ngi mel ni remporté na benn trophée de indi ko mhm. Sénégal. gis nañ performance yu mu ci def malgré tout ça koo xamante ne teeruñ la préparé ba pare nga indi lii. waaw ma ne ma ne ma ne mu ngi mel ni am na victoire. waaw loolu laa lay wax. dama ne moom. moom ah. li mu def. parce que athlétisme record là. c'est une performance. bien mooy que. record boo xam ne ki ko def fii au Sénégal Amadou Gakou il dit de mon vivant je souhaite qu'un athlète dégg nga mu battre sama record am na démb te dafa yàgg depuis Cheikh Tidiane Diouf def na ko dafa battre record mais il a été éliminé mhm, man nag man man sama man man man du ma changer ay wax donc. man li ma waxoon wax naa ko. Hmm, athlètes yi dem nii man du ma leen wax daara. Hmm. bu ñu jëloon ndaare tamit damay ne gàcce ngaalama. kenn hmm. toppatoowu leen. kenn toppatoo bu wax defuñu ko ci ñoom. toppatoo bu wax. defuñu ko ci ñoom kon nag il faut arrêter sa tappale là dans le sport. léegi nag ñii ñëw. parce que nag. ne riir a riir du régler dara. xamul dara. na riir a riir du régler dara nag ay jëf la il faut que mu leer nag évaluer leen li am fële à Paris boo leen ko évaluer ba pare ngeen xool lan moo des pour suñu athlètes yi bu ñu préparer les échéances futures waaye di na riir a riir rek du régler dara du régler de. xam naa ne riir a riir bi daa bëgg a kaw moo tax waaw non mais riir a riir bu rekkee de daa bëgg affaire yi riir mais da riir a nag yéen a joxe affaire yi léegi encadrement man nag maa ngi leen di déglu di leen di seetaan man madame la ministre maa ngi toog di leen xool man damay def nii rek di xool fu mu nekk nii mënuguma leen wax dëgg dëgg man damay logique parce que xaar waaye nag bu ma demee ba ci kanam bu ma demee ba ci kanam ba app bi ba ma xool bu ma gisul ndax nag kenn mënul téye sama xam nga ministre des ministre yi fi am yëpp bii moo kii moo gën a metti charge nga yore jeunesse yore culture déjà foofu rek yore sport déjà foofu rek foofu rek Sonko ak Jomaay rek foofu rek raté nañu kii te yàlla yàlla bu mun a nekk conséquence bu bon ah waaw parce que ñett yooyu parce que ñett yi dafa rëy dafa mag de non mënul nekk ñett yi trois trois mag trois ministères. la la pauvre loo tax moom mu ne léegi riir noonu rek di ko mën a waxee merci. merci beaucoup Cheikh Tidiane Gomis ci li nga indi ci sport dañuy ñëw rek dem ci rubrique actualité ànd ceeg Aliou Sow. Sow Aliou donc ñu tàmbalee